الحمد لله المجيب ذي القدر من خصنا فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من خصنا فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من غسنا فضلا بليلة القدر معظما لشان في الدهر حتى غدا خيرا من ألف الشهر ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي خير البرية بدا محمد والآل والصحب الكرام ماذا فرا داعي بأبدل المرام خزا وإني اليوم ذو استمطاري من الكريم كلما أوطاري يا ربنا بفل خاس الليلة فاستر مغائبي واسمع قولتي يا ربنا بفضل هذا اليوم أزلق أموري وأمور قومي يا ربنا بفضل في كل ما يضرني وللهدى على سلما يا ربنا بيمن خلق جنانا قبل وتاقرا لي الجنانا يا ربنا بجاي النورين قبل وللأمة في الدارين واسلك بنا نهج نجاح وفلاح واجب قلوبنا لزهد وصلاة وأولنا سعادة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم وصليا خير صلاة وسلام على الذي من دوره دار السلام محمد باب الخدا في الردى نائل المدى جالد جامس وردى والآل وصحب ومن لك دها ما أب بالفوز العظيم من دعا والآل وصحب ومن لك دها ما أبى بالفوز خزيم من دغى Liverpool! Fall wax diin gannaaw loolu nag ñu ngi beral nuyoo ko siyaar ndokkeel suñu sëriñ suñu yaakaar suñu xaalis loo koy dellu suñu Fallou moom suñu bu yi sër te di ko ndokkeel ci guddi gu sell gi nga xam ne taxawaayam ak ndimbalam moo tax ñu mën a am. bés bu toll nii ba ñu ñëw ci kàddu yi sëriñ bi ak yóbbante yi mu yóbbante ci mbooloo mi ñu fàttali tuuti suñ digg ak sëriñ bi ak suñu taalibe lépp aju ci kaw ndigali sëriñ bi mu mel ne guddi gi ne ko sëñ Tuubaa ñaane woon suñu borom te bis bu ne ku ñuy tëj furgu bi di ko ñaane noonu danaan wax moom sëñ Tuubaa ni allahumma ij'al baqiyata muksi fi dunya ka laylatil qadri fil baraka yow suñu borom na nga def li ma dese ci dund ci kaw suuf guddi gu mu mel ni darajey guddi lay du xatam loolu li muy tegtale mooy rëyaayu guddi gi ak màggaayam daana wax it suñu borom ñaan ko ci téere bii di ko laxat na makkin wa wasya wa muksijan bi taw siatin ka laylatil xadri ahyaanan fa ahyaan suñu borom maa ngi lay nga def samay yëngu samay noy samay dal samay dem samay dikk mu mel ni daraja yi ak màggaay yi guddi laylatul xadr yi kon ñun cër bu rëy am ci guddi gii Sëñ Tuubaa moomu nag dafa waxoon ne ñetti mbir yi yoo xam ne suñu borom da koy jaay ñetti mbir te nanguwul avance mooy da joxe njëg yëpp wala nga bàyyi ñett mooy albarakatu alquranu aljanatu barke sëñ Tuubaa nee na yàlla da ko doon jaay alxuraan yàlla da ko doon jaay aljanna yàlla da ko doon jaay bi mu bi ma ko waxee nee na ma nanguwul avance mu ne yàlla dogal nag fay naa ko ba mu mat sëkk ne tege ci te ñett yooyu benn ku ci yomb amul bu dee aljana la dinañ ci wax tuuti ndax téere bii nga xam ne moom lañu moom la ñuy yàlla baaxe ñu ngi ko jàng fële ci Baxdaad muy al fulkul mashhur bi mu ko liggéeyee dafa wax ne suñu borom def na ko mu nekk wa an yakuna farxata ahlil janna téere bi ci boppam nee na waa àjjana moom la ñuy bëggee mooy mbégum waa aljanna loolu nag wax na ko ci téere bi ci faram yu bare bare bare kon bu fekkee yàlla dogal dafa dogal ñu yaakaar ko ànd ak moom di ko liggéeyal ñu am ci kilifa bu mag kilifa muy liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéey boo xam ne des koo nangu ndax liggéey bi liggéey koo ndax boo xam ni ànd nga ak sëriñ Tuubaa war nga bokk ci sëriñ bi nangu nga ko ab liggéeyam tey tamit teg ko fu kawe ndax fi mu teg Serigne Touba kon bu ñu suñu dogalee ñu boobu nekk ci biir loolee lool ak cant rek moo ca war waaye góorgóorlu moo ca war te mooy defaraat suñu taalibe ci jamono bu nekk ndax jamono ji jaxasoo na lool te taalibe yi daanaka nu ñu bëgg a réer ndax boo seetee mag ñi àndoon ak sëriñ bi. Dalam ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babu muridin dalam ko ci mbokkam yooyu Cheikh Massamba maam Cheikh Anta sëñ ma Lumbe ñoom ñëpp kenn ku ci nekk seen laxasaay adalah a teg ku sa ndigg li Lumbe bi ak ni ko ma Lumbe dafa man du ma wàccee ci sama ci sama biir kër mukk ëllëg ñu dajeeg sëñ Tuubaa di am waaye ca tool yi ma doon liggéeyee fa laay wàcce ba mu demee ba bi jege ci la bàyyi kër yi dem ca tool la fa la nekk ba wàcc liggéey fekk ko fa keroog bi ñu koy denc ak laxasaay bi ñu ko kon liggéey bi amul tekk laxasaay amul kooku ji morom ñu àndoon ak sëriñ bi ngërëm ñu nekk am nañ ko ci Cheikh Amadou Bamba waaye kenn ku ci sëñ bi masa yeewu it dalay bu demee dalay soppi lu am liggéey rek waaye amul déggee xasar kon nag loolu ñu góorgóorlu ci bu baax baax nga xam ni moom rek la ñu am ñun ak taalibe rek la ñu ak leneen lu moom ndax gis nañ ni sëñ Tuubaa bi mu ñëwee bi mu wooyee sëñ Fall woo sëñ Mourou Moustapha woo masamba Massamba woo sëñ Mor Faye Bousso ca ca Thiel Jolof ne leen damaa bëgg ngeen xam ni li ma yor nii bu ngeen deful ndaan jàmbur yi daanu ko jël bàyyi ndax li ma yor may mu day jaay ma jur la taxul nga am ci may sa mag taxul nga am ci may sa dajaay taxul nga am ci lii tax nga am ci mooy nga jaayante mooy tax nga am ci sëñ Moussa jaayante Cheikh Massamba déggee li mu wax dañuy sëñ Tuubaa man de damaa def damaa xamuloon lu ñuy waaye gannaaw wan nga ma li man dana am incha allah sëñ Fallou ak xasida la xasida moo xam ne damay wax de saa bu taalibe yi dajee war nañ koo jàngat ndax mooy xas ne bu siiw boobu yaa ayyuha sheykhun nafisul murtada yaa faatihan maa xablu kaana murtaja bextu bunu watiya bil irada loolu nag moom leneen la yow sëriñ mi nga xam ni amoo njëg am na fii si loo xam ni amul njëg may wax na ku ko mën a jënd jur gi nga jur man sëñ Fallou jaay naa ko jëndee ko nekk sa sa bi. may wax ni nag ku mën a doon bu ñu la woon boo joxee nangam sëñ Tuubaa jur la di sa bàyyi damuy dëgg dana la jaral fu ne ko mën a wute ji am ko ñëw joxe ko sëñ bi jur la moom nag loolu la am noppi muy sëñ Tuubaa jur mu jël loola jaay ko jënd ko taalibe bi kon taalibe bi jar naa gëstu ji nag danaa hmm? gëstu ji danaa moom sëñ bee ko jur mu jël jureel gi jaay ko jënd ko taalibe bi ba noppi lan ci teg dañuy sëñ Tuubaa ginnaaw bi nga ko jaayee ba noppi jox ma njëg gi jëlaat naa njëg jox la ko addiya min baax di mashtari muha bi nii ahdaytuha lakum bi ghayri madi te jox ki ma ko jox nag kàddu du ci tege kàddu kàddu nga xam ni am mu mën a jëfal mu rëy rëy rëy rëy mooy comme ko rek yow ci ci ko war yow de sax danaa woo euh, sëñ Moustapha Sy sëñ Moustapha Sy moo daan wax naan man de wàllu wi laa sëñ Tuubaa bëgg na sëñ Moustapha Sy moo daan jàng xasida benn bi sëñ Fall da ko woo mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga seeree ma sama digg sëñ Tuubaa mu ne ko nu man xañ mu ne ko boo ko matul woon du ma la ko sant damaa bëgg nga seere ma keroog bu may ji daayanteeg moom ci kaay Thiel Jolof xasida ko ma defoon dama caa boole woon nga defal ma xar baax loolu nag laay tuub nga seere ni tuub naa ko fii su su demuloon tey du ma ne ko ma defal ma xar baax dama koy bàyyi sama bopp rek buñ de buñ dajee ci pénc bi yàlla na nga ko wax ko Mouhamadou Fadal nee na baat bi ñu la waxoon te mooy nga yooyu yëpp lu ñu war a jàngal da nga siy seen ma ci yoon li mu am ci yoon nga xam ni doomi Sëriñ Tuubaa yëpp. wenn melo lañ waaye cër bi Sëñ Fall xam ne cër boobu benn cër rek la te dara ko ko lu dul ak taalib te yoonu mooy moo ci ëpp xam-xam li mu jàng Sëñ Fall mu jàng kenn jàng waaye daa wax feeñ sax ci ay kàddoom day wax rek nga xam ni yow mi am xam-xam xam ni kii li muy wax ni alxuraan la wala xadis la wala leneen kon mooy li nga xam ni moo di jënd fii di njëriñ soo dëggee ñuy tëj waxtaan nag gudd àjjana ñooñu mu xam Sëriñ Tuubaa dig ak njabootam ak ñi koy lëggéeyal dañ am lu ci bëgg a leeral tuuti Sëriñ Tuubaa dafa nekk ku doy waar koo xam ni suñu borom yi ko bind rek moo ko xam ku ne ñëw na ci jamono jii waaye ku mel ni si Ahmadou Bamba mos a ñëw ci jamono ji dafa wax ni sabaxtu man laadamu sabaxtu bi tay xaw man jaaxalul sama nag bi may ñëwee jamono fekk naa fi ñoo xam lu ne defal nañ ko yàlla suñu borom waaye damaa naaw rek romb leen xamuñu sax ma jaar moom nag aljana jooju mu nii da koo jaay da yaay da jaay mu jënd ko ba am ko dafa am tuuti luñ a leeral rek sëñ am bis waxtaan nii ci jotaay bi suñu faru lañ ko doon fekk nag ñoom suñu ma bi mbay di lawanu daana jàngal suñ tubaa xasida ñuy wax ba tudd ko nga xam ne bu daan bu ko masaan a jàngal sëriñ bi maanaam bi sëriñ bi da koy jox xaalis sëriñ tubaa waaye wax nañu bu génnee daana ci jënd loo xamante ni jënduwul am na yoo xam ne su ko su ko wax di jënduwul daal loo xam daal jënduwul ñu koy wax ci jataayu suñu fàll mu ne tey leen ci de da ngeen ci tey ndax moom kat bàyyam daa am lu mu doonoon ci sëriñ bi bàyyam mooy suñu mën waxtaan bay moom ngeen di dégg nga xam ni suñ mën a waxtaan day suñ tubaab rek da koo mayoon ne ko lu ma kenn suñ ta wax yow may may laa la rek danga ko wax nga xam ne suñ tubaab moom du kaf moom boo masaana ñëw di indi kaf muy di am na ku ab xale bu masa di ñu bàyyi xale bi muy dox dem ci mu ne kooku de da ngeen ko da ngeen ko jël ndax moom da xam naa bu gisee bu mu foogoon dina foofu te ñun taw ñoo foofu sëñ bi moom dimension bi nekkoon kawe na lool am na ku ko mas a indil apparition moom sëñ Tuubaa bi mu koy indee sëñ bi ne ko lii lu muy lu muy jaay mu ko lii day pàkke day tax bu naaju tàngee mu dox sa digg naaj yi mu ne ko defal ma gis waa ji bés mu mu firee ko mu ne ko bàyyee mu ba mu ko bàyyee mu daal mu ne ko mu ne ko kon ba nga koo jariñoo jaamu ko mu ne ko waaw mu ne ko ñun taluñoo jaamu ko du yàlla loolu ko jariñoo jaamu jaamu nga mooy téye gi mooy téye nii jàpp leen téye gi mooy téye nii yaa koy jaamu dimension bu kawee la Cheikh Amadou Bamba def bu kawee kawee kawee am na kum ni yow muy yow muy foo ne dana ko mën ne mbàkke maa ngi doon dëkk sàngam boobu bi maa ngi doon dëkk sàngam mu mu mu daal koy fël mu mu mu dàgg ko li ko maa bëgg ku ma ci ne foo ne nga ne ma maa ngi ci waa ji ba mën lu mooy lu war ak lu ñu sopp su ma sonnee dem noppalu ci bu baax bu baax mooy lu dagam mooy wax muy li ngay dëkk nee na daal di am ku gëstu ne ko yow fooy ne ba man ba de maa nga fan ko wàjji moo la sare waaye kon li ma wax rek la am na ku mos a laaj gudd waaye dama koy dama koy wax ko di ni ko mu ni yow di ah Mbacke ko waaw. mag bi woy day wax qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bu matul moom wax dëgg jëlee laay waaye benn yaa nekk sànq dund la xam wax leen ko ku àgg ku àgg foofu diggante mag suñu borom amuloon foo amuloon foo waaye kii ma leen bëgg a wax sëñ bi da ko mayoon xaas ci boppam sëñ Tuubaa nag am doomam ju jigéen ñu joxoon mu dem kër bu dem sëy ba mu demee nag diir bu gàtt bu dellusi sëñ bi séen ko rek daal nañu woy nañu woy mat Modou Baraam lay mu ñëw sëñ Modou Muxtaar bi mu ñëwee sëñ bi ne ko Modou Baraam man damaa jaaxle kat mu ne ko mbàkk lu la jaaxle mu ne ko man kat diw mi dama ko jox mu dem kër waaye dafa toogul mu ne ko moom kat ko mën a toog ndax yow yaa yàlla sa borom dañu du def yëfi nit sëñ Tuubaa ko yëfi nit maa ngi yàlla bu defee yëfi ay am bi mu ne ko waaw sëñ bi nag luy jëfee mu ne ko nit ñi bu mu bëggee boole ñu dem ci sëy ñu leen war a def buñ gisee buñ waxtaanee bu juboo buñ leen mayee sëy bi dana yàgg waaye da yow doyatee rek naan yàlla sa borom nee na naa jox diw diw loolu luy fii ni mu waxee loolu xam nga daf la sëñ bi xaal diw sëñ bi nag moom Mouhamadou Moukhtar xam nga yàlla moom ngay wax xam nga fu ñu toll maa moom ci jëflante yi ci jamono yii ñu toll nii mën ko déedéet ko ñu toll su ma neexoon jigéen ñooñu ñuy wax ci àjjana ñu indi leen ñu doon seen soxla yéen sama ñu doon seen soxla boo léegi ngeen am débat ne ko ku toll foofu nag dootu def defi nit baa bëgg a wax te loolu lu bari la ci wax lu bari ci jumaa dane shahidatil amlaaku fil buxuuri bi ànd ne xusnu mu wóoral wóor malaay yi ne ci géej gi keroog bu ma yàlla di jox can jigéen bu xoraay di ci àjjal ñoom fekkee nañ ko ñoo ko ñoo ko mu del wax ne akramani llahu nadal buxuuri bi bahri mawti wa muhuural huuri yàlla teral ma ci géej gi ne ma ahmadu yow doo doo dee doo doo faatu far naa ci si jëmm dee ma demee fara yam mu ne ma wa muhuural huuri mu ma jigéen ñi xaajale jigéen àjjana yi seenu gan ci sa loxo la ne te loolu ñëkk bi dem ci géej gi fii ci kër Sëñ Suhaybu nga xam ne fi la taal yi jàll ba du ma ziyaar yi ودافعت من زياد في مات خير بريا مهم سليمان بين كوي تالف في بير كردي دي تالف بيان ديغي خوراي ني فين مو سي توا اما وقت بير قول لنا الله اطراب مقدره تحت الخطاب من الموسى سليمان ومهرون اتقاء الله فاطرة بتوكل من هوا نفس النتاعات بين كوي تالف amna talbi sin taw sin ndaxe mané mo mo ci ci wetu sen bi mu taalifee ba yàggal sëriñ bi war ko jigéen ñi mu gis leen ba mu leen gisee dafaa ëpp bi mu xamale ko dañu sëriñ Tuubaa man jigéen ñi àddina yi gerte naa leen ñii lay xaar ba ni mu wàccee liggéey day jël soxna suñu dakamaane xasida boogee bi ko sëriñ bi bind daf ne wa maxaluhun na seen cat jigéen ñooñu mooy ittaqaawullaah fàtte mooy mooy ragal yàlla bi tawbatin min hawa nafsi li taat mooy da ngay tuub bàyyi ba bànneexu bakkan bàyyi lépp loo xamante ni lu la neexam nga doo mën a am ci ñoom boo ko demul ci géej gi waaye bu demee ci géej gi dafa wax ne suñu borom jox na ma canu jigéen bu ko rey ci àjjana léegi sama loxo la moo feneen ni shahida lii malaayikul buxuuri bi ànd ne mu war a buuri mooy ne ci man maa sama loxo yàlla nekk tam ñu yor xuraay bi loolu nag da koo da koo fi ne ci baati wolof baati wolof danaa lu bari sëñ Tuubaa dafa wax ne nii ngeen nii ngeen xamee ni fii ci àddina kenn mënu maa xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow la na raw kenn mënu maa xam ne yonente bi ay naam ñoo ñu ba ci moom ne ko ñun de dañoo ni ñu yaay yonente bi sallallahu alayhi wa nuru ko ci lépp waaye gis nañ weñ bi la dal gis nañ ngay am takk der te moom muñ daawu ko dal daawul am takk der loolu nag la ñuy laaj sëñ bi loolu ngeen di laaj ñu ne waaw mu ne leen ndax xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari yoon la ñëw ci kaw suuf naar bi baaxoo ah, ma ko mu ne mu ne ko laajal say bopp mu ne ko xaw ma ko xamuñu ko naar bi ko xaw ma ko xamuñu ko sëñ Tuubaa ne leen ñëw na ci suuf ñetti ñetti ñetti yoon yonent bi salaam ñëw na ci suuf si ñetti yoon yoon wu njëkk wa mu ne leer la ko mu ne fi lu soob suñu borom yàlla delloo ñaareelu yoon bi ruu te mooy bi mu nekkee Madinatul Munawwara ruu la woon ñetteelu yoon bi nag démb la naar bi naar bi waxoon mu ne xaaral yëkkati ni man mii la xaaral man mii la moo tax mu ne nii ngeen xame ni kenn mënu ma xam ne ku ma topp ci ni may def yàlla boo ñàkk ci addiya ba faaw ci barke si ci xarit bi koy def ku ma toppandoo ci ni may def mooy sànni fi sa addiya yow mënuñu laa fekk ينزل لوائه مقر المرسلين والانبياء ولو يا يوم الزمن كان راب ويرنتمي ولا جاي موي فلا يرنتي نوكو اقول لي كرم دمني سيلو نيموتشوك نانا بوبا xam nga yent mo mo jëkku du wañu awal señtu wañu awal man yaqra'u bab al-janna ahmadu al-mukhtar muhyi sunna nee na boo déggee kii ñëw kii ni koom-koom ci buntu mooy sama yonent bii nga xam ni mooy mooy borom sunna si nee na bu ëllëgee dana yonent bi day def nii tenkem tenkem bu ko defee jigéenu xuraay nii ñoo koy ñoo koy gàttandoo ci àjjana escorté ko boo dee ci mooy bi moom ko fee wax waaw ñu naan loxul buruuru loxu suruuru talqaaw xuuru bandal xanaay bu ñu àttee ko noppi jigéen ñi xoree dañoo ñëw wër ko gunge ko ba mu tàbbee àjjana nee na bu dee tenkeem tenkeem ba ci bunt bi bu ñëwee dana koom-koom Ridwaan mi gàdde àjjana ni kooku moom mu ne ko man a Muhammad nee na mu ni mu daal di ubbi yoon di dugg mu dëjal Cheikh Bamba nee na ne ciis nee na man nii ma ni tenkeem tenkeem tenkeem ba ci bunt àjjana nee na ma ñëwee ni koom-koom rival ne kooku mu sëñ Tuubaa nee na ko maanaam Muhammad nee na ma mu ubbi mu ubbi ma dugg te du ñu amee ma ngeen di sallallahu alayhi wa sallam da ko bindee sabaxtu ghayriya ila jinaan ma ànd bi xurashil azam ku dul maag yonent bi maa la ji baajana ku dul yonent bi maag moom ñoo di ji baajana sëñ Tuubaa ko waral mooy rival xamee la ndax rival ñëw na bu nuyu ma ridwaanuna xaasinu lil jinaan xa saafaxal xadima bil banaan ridwaan mi gàddaa jële ñëw na ba saafanteeg xadima rasul mi ci ay nee na xamee na moo tax kon ku am kilifa gu mel noonu da ngaa góorgóorlu de ah da ngaa góorgóorlu fi ñu daanee suñu kàddu moom dafa wax lislaam ak alxuraan ñoo fi bàyyi ñoom it fi bàyyi fu ñu yem fa laa yem fu ma yem loolu suñu daana ko bi ci mujj daana wax ni fu ngeen fi dégg lu baax ak fu mën a jaar lu sori sori sori fii la jëm si barke moom fii rek lam yàpp fil xalqi si waa ma nekk bu barke amatul ci àddina bu dul koo xam ne sama barke ngay dund ngay dundee bu la neexee sama barke ngay dundee bu la naqaree sama barke ngay dundee kon nag mbokk yi nañ taxaat taxasaay yi te nekkaat ci ginnaaw sëriñ bi te dolli pas-pas yi nga xam ne loolu rek moo ñu jëriñ àddina ak alaxira amul leneen sëriñ bi nee na ñu ngi nuyu jotaay bi bu baax a baax a baax sëriñ bi nee na mu ngi sant jotaay bi bu baax a baax. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله سميع العليم سميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله سميع العليم سميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي الذي لا إله لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم الحي القيوم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي الذي لا إله

إلا هو إلا هو الحي القيوم حي أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي الذي لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي الذي لا إله لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم حي أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم حي القيوم استغفر الله استغفر الله العظيم الذي عظيم الذي لا اله لا اله الا هو الا هو الحي القيوم حي القيوم استغفر الله استغفر الله العظيم الذي عظيم الذي لا اله لا اله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 الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله الله اكبر والله اكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر سبحان الله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 امين يا رب امين سري خادم قايد البرم دام نعم، يلا في امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار تسلم آمين آمين آمين آمين آمين وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتوفنا يوم القيامة آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين آمين إنك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس بعدك ولا بعده ولا لباسك آمين آمين اللهم لا تترك لنا في مقتنا عزازا اذا لقدته امين يا شفيته ولا حاجة بك امين آمين آمين ولا شر امين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين امين امين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين رب عندك أعلى الدرجات أنت ولا أقصى الغايات اللهم صل على محمد الكرم مولانا محمد وعلى اللهم صل على محمد الكرم يا محمد يا صل يا محمد يا مولانا محمد يا وسلم يا آمين اللهم يا أولياء يا أولياء يا طيب يا مالك يا مؤمن يا محمد

تميل يا جار يا سعي يا بارئ يا راشع يا مسير يا فاعل يا فاتح يا رب يا بديع يا باقي يا ظاهر يا ضار يا خالق يا خالق يا خبير يا رب يا واسع يا حكيم يا ولي يا والي يا والي يا والي يا وارث يا سلام يا شكور يا شهيد يا غفار يا بر يا غفر يا غفور يا غني يا سعد صل وسلم على سيدنا محمد بالاستقرار والسلام وأصحابك الهزم ومنطقة عملها وأنوارها آمين آمين آمين وعليك آمين إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا